révélation la yu xam ne ku moywul dina relancer débat jëm ci wàllug respect délé déclaration politique général bu ilimaan jiwrin ya ndax nag bu ñu sukkandikoo ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi réglement intérieur bu assemblée nationale dañ ko falsifié. réglement intérieur bi dafa faux et pourquoi ñu jàpp ne réglement intérieur bu faux la et dañ ko falsifié maanaam dañ si dëxëñ loo xam ne. jaarul fa mu war a jaar pour dugg si li nga xam ne mooy règlement intérieur bi te ñun député ñun dañuy proposer ay loi ñun député dañuy voter loi ñun député dañuy saytu sax loi yooyu ndax ñu ngi ko teg ci yoon ak gouvernement bi ni muy doxalee kon jaadu na bu ñu indilee loo xam ne teguwul ci yoon ñun ñoo war a njëkk taxaw ni lii mënuñu cee liggéey parce que nous devons être un exemple député yu mouvance présidentielle jàpp ne amul benn disposition ci règlement intérieur bu assemblée nationale boo xam ne dafay préciser anam ñi nga xam ne si la ilimaan jiwrin ya di def déclaration politique générale. disent que bon euh, ça a ça. oui le premier naan waaw nii lañ ko yàgg defee premier ministre Amadou Ba nii la ko defee waaw ndax dañoo war a wëy di salfaañe li nga xam ni mooy yoon di salfaañe règlement intérieur bu assemblée nationale déedéet. Est-ce qu'on continuer dans la violation du règlement intérieur et de la Constitution Non. njiitug groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi di fàttali ne ci octobre 2019 la ñu mujjee soppi réglement intérieur bu assemblée nationale gannaaw bi ñu supprimer poste premier ministre député yu Yewwi Askan Wi nag woo nañu assemblée nationale euh, ñu rétablir maanaam ñu delloo article yooyu nga xam ne dañ ko dindi woon ci réglement intérieur pencum ndaw réew ma